waa sama gars yi gis ngeen sama gars yi ziar naa leen de nu mu doyee nag naka affaire yi cool de jaajëf waaye gis ngeen loolu la de <laughs> gis ngeen gars yi waa GPS pikin waa GPS Pikine euh, sànq fi ñu nekkoon moo nekkoon GPS euh, bu Rufisque à côté gis ngeen waa GPS euh, Pikine gis ngeen leen ndeysaan waaw gars yi ñu ngi fees dell fii tey macha allah waa GPS pikin tey moom presque mën naa ne tey jeunesse pikin bi yëpp ñoo xëy jubal si fi nga xamante ne moom mooy euh, ci li nga xamante ne moom mooy euh, euh, ci tool yi waaw gis ngeen ñu ngi nii fees fi dell macha allah voilà gis ngeen waaw xale gis ngeen ñu ngi nii GPS tey Pikine moom gëm naa ne Pikine gis ngeen jigéen góor mag ak ndaw waa gis ngeen gars yi ñoom ñëpp ñu ngi liggéey gis ngeen gars yi ndeysaan gis gis ngeen gis ngeen gars yi ñu ngi nii gis voilà mi jigéen mi mag voilà ñëpp ñu ngi japp ci li nga xamantene mom moy liggéey bi voilà fi ni voilà ñu ngi nak fi nga xamantene mom moy waye mbam wa ñu ngi waye mbam euh nek fi nga xamantene ci commune Bambilor la gis ngeen gaay ñëpp ngi ni ma sha Allah tay manam so xolé da nga naan ñi tay pikine dara de satuba kilifa wi sank <laughs> ziar nañ la ah sare ah, ah, voilà gis ngeen gaay ñi ni maa ngi si oto bi voilà monsieur le ministre grand yaar naa leen. li koy. waaye. waaw monsieur le ministre. jaar naa la. jaar naka si sa. voilà voilà mu ngi nii monsieur le ministre mu ngi noonu. voilà ba beneen incha allah mu ngi noonu voilà baax na ko incha allah jaajëf voilà gis ngeen ko voilà mu ngi noonu voilà. voilà monsieur le ministre baa ngi noonu voilà gis ngeen gars yi ñu ngi. comme ni ko sama gars jaar naa leen gars yi nu mu doyee nag voilà gars <laughs> nag jaar nañ leen nu mu doyee nag ça va naka liggéey bi eh sama gars yi jaar fii la fee ça va naka liggéey bi gis ngeen voilà gis ngeen gars yi ñu ngi nii voilà voilà gis ngeen waaw kooku ministre voilà ministre monsieur le ministre Moustapha Sarré léegi la fi jóge voilà sama gars yi ngokk eh, Amazone yaa ngokk voilà Amazone yaa ngokk macha allah gis ngeen voilà ñu ngi nii <laughs> Amazone yaa ngokk. waaw Mojib la quoi donc ah, ñoom ñoo demoon ba pare. ah ñëw fii nii macha allah mais li ngeen sonn di. Ah. ça gis nañu na presse dañ organisé woon Pikine macha allah donc ñu doon pare woon poste Thiaro yi uh-huh. euh, ba rond point Sicap Mbao uh-huh. automatiquement ba ñu pare foofu tam dañoo rallier ñëwaat tamit si famille ñëw si famille ah macha allah macha allah macha allah daf nañu rafet daf nañu rafet daf nañu rafet le conseil spécial du PROS boo ngi ne Babacar Ndiaye ah Babacar ana Babacar yee ah yee Babacar waaw Babacar moom Eh, sëñ Babacar sëñ Babacar ziar nañ la nu mu dawee nag naka affaire yi ça va liggéey bi sawa va ah, macha allah tey yéen a ngi ci tool yi voilà Babacar a ngi nii waa nekk euh, conseil euh, premier ministre euh, Babacar xanaa léegi ñu laaj la sa xalaat li nga xamante ne commencé nañ ko depuis deux semaines GPS bi nekk di ci def liggéey bu am solo ci li nga xamante ne mooy VAP yi waa nga jox ñu sa xalaat ak nak boo gisee ko waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi tudd Babacar Ndiaye. Mhm. donc nekk euh, conseiller personnel du premier ministre Ousmane Sonko. Mhm. mais nekk aussi le coordonnateur. Mhm. de la jeunesse patriotique du Sénégal. Euh, du département de Pikine. Euh, di wax li ngeen gis fii tey. la JPS département de Pikine. moom moo ko initié.

dans l'opposition,

gën a wóolu Ousmane Sonko soo premier ministre ndax ñaar ñi mosuñ ñoo wax te ñu a wax wax ndaw ñi dañoo delloo ci tool yi a que dañoo soxla souveraineté ci ñuy dund mhm. soxlaatuñ di jéggaane li ñuy lekk mhm. la ñuy jéggaane mën nañu koo bay fii ndax mhm. fañ koy jéggaane lu fa am suuf moo fa am ndox moo fa

sensibilisation au niveau de de l' organisation au niveau du département. ma amoon idée wu. ñu ndekkee de local. macha allah fonde la ñu ndekkee tey. incha allah bu yooyu ñu dem ma servir. amul benn problème ok jaajëf jaajëf gars yi sama gars yi. waaw Idi la Dionewar la Idi Dionewar. waaw man la waa waaw gis ngeen gars yi waa JPS ñoom nee nañ instant yi après suma dañ may ñëw euh, servir li nga xamante ne mooy fonde parce que foog ñoom ñu participer ci li nga xamante ne mooy consommation locale bi tey sama yaay waaw gis nga mu ngi noonu voilà gis ngeen gars yi voilà gars yi ñu ngi nii macha allah gis ngeen fii nii voilà ñu ngi nii waa pour wan leen gis nga détermination bi nga xamante ne ndaw ñi am nañ ko mais lu ma leen doon expliquer sànq rek waaw pour wan leen euh, ndaw ñi fu mu nekk nii sama gars yi ah deru jaan bii bal la. ndeysaan waaw bi mooy ah, deru jaan la. waaw <laughs> ah, ngeen voilà ndaw ñaa ngi nii gars yi ngi nii macha allah sama gars yi. gars yi ziar leen nu mu dawee da si caare sur mer. non non daa ñëw mais Fatou Fatou woo leen ma. Ah, woo leen ma. caare sur mer sama gars yi ah <laughs> caaro yi moom sama secteur la. loo gis nga <laughs> non soo leen kii rek ma ñëw. Ah, ah, jàpp leen ah? bés ma ñëw merci gis ngeen gars yi waaw gars yi ñu ngi loolu ndeysaan waaw yi ñu ngi loolu waa kilifa bi. ñu mooy ñan. jàmm ci quoi macha allah macha uh-huh. Uh-huh. la rek noonu la rek. Mm-hmm. macha allah macha allah macha allah uh-huh. yokku waaw yokku rek waaw. jaay eh Aïssatou mais Aïssatou yow béyoo de <laughs> Aïssatou nag béyoo Aïssatou. ah waañ bi la ñuy jox. <laughs> restaurant mais Aïssatou waa Pikine moom xanaa Pikine moom tey kenn desu ba. ah Pikine kenn desu. ah macha allah dafa tombé ak activité dajaloo. waaw gis nga mu ngi noonu parce que waa Mojum ñu ngi doon def seen randonnée. randonnée waaw dégg naa ñu. ndeysaan gis nga ah. waaw Moustapha Sarr gis naa ko sànq. Eh, eh, nu mu demee nag. maa ngi jël maa ngi jël kii kañ sànq maa ngi jël Babacar. waaw Babacar sànq maa maa ngi jël Babacar sànq. waaw mm-hmm. mm-hmm. ah, macha allah. non tey moom tey moom lii moom. waaw mu ngi loolu. waa nag li des daal mooy ministre bi waa na ministre bi jàppale nag ministre bi jàppale ndax Pikine bi nii lii tuuti na si ñoom man ci lu ma gis waaw parce que un hectare cinquante lii nii man man tuuti na trop ci waa Pikine normalement ministre Mabouba kon ñu koy interpellé waaw su mënoon a jàppale gars yi xam nga suuf si nga xamante ne mu ngi fii nii te bëri na fi ndax soo xoolee suufu Prodac bi fi mu ngi fii nii presque plus de mu ngi fi defuñu fa dara kon yooyu suñ ko mënoon jël tamit xam nga jox ko ndaw ñi euh, ñu ñu ñu ñu béy ci gina gina doon loo xamante ne lu baax ndax détermination mu ngi fi engagement bi mu ngi fi ndax tey volonté bi mu ngi fi ndax tey soo ñëwee li ngay gis fii nii da ngay gis ne ñii ku leen jox 5 10 hectares duñ taxaw ak moom voilà muy ngi noonu mm-hmm. Mm-hmm. dañoo am jeunesse boo xam mm-hmm. euh, maanaam dañoo euh, nañ leen ko ñaanal parce que moom su wootee ni jeunesse bi dañoo war a jóg pour bàyyi rek. Mhm. maanaam jeunesse bi ñëpp. Mhm. maanaam dinañ gis jóg bàyyi. macha bi. def bay dañoo war a bay loo xam ni moom la ñuy dundee mhm. bay ba pare dundee mhm. macha allah maanaam lépp lu ñuy defaree lépp dañ ko war a defaree suñu réew mi mhm. euh, ñaagee ko suñu suñu réew mi euh, di bay di dund macha allah bokk ci maanaam li nga xam ne maanaam mooy jëmale réew kanam kon ñaanal président Diomaye ñaanal suñu premier ministre Ousmane la jeunesse yaay booy suñu borom euh, lépp loo xam ne bëgg nañ ko ci Sénégal yal na ko yàlla yombal amiin amin amin amin jaajëf jaajëf gis ngeen sama gars yi waaw gis ngeen gars yi gars yi ñu ngi noonu waaw gars yi ñu ngi ci xoolama lii rek waaw xoolama eh grande grande ziar naa la nu mu dawee nag sa waaw tey daal yéen a ngi gunge waa département Pikine ci ci liggéey bi voilà léegi yow loo ci amul loo ci yokk. waaw benn bon ñun bi ñu xeex lépp. di xeex bu nekk ci résistance. di góob a gouvernement la lii kese lañ bëggoon. pour ñu jox ñu suñu suñu. ñu bay ko. suuf ñu delloo ko Sénégalais. voilà nag lii nga xamante ne gouvernement bi tàmbali na ko. dëgg yàlla day initiative bu neex la. eh mon frère. nga xamante ne yaakaar naa ne facteur de développement la. parce que mbay. mooy suqali réew. réew mi pour mu suqale. pour ñu delluwaat ci tool yi. te li ñu gouvernement bi woon it. yaakaar naa ne ñëpp war nañ ci bàyyi xel delluwaat ci tool yi. parce que ñu ñu bay suuf. suuf si ñoo ko moom Sénégal terre bu plate waaw am na ndox am na lépp. dëgg la ma macha allah macha allah bi rafet na jaajëf. merci beaucoup à tout macha allah gis ngeen gars yi ñu ngi nii voilà gis ngeen Linguère yaa ngoog waaw Linguère ñoom tamit desuñu ñoom ñëpp ñu ngi nii voilà gis ngeen waaw gis ngeen waa Mosip ñoom ñu ngi jugee ne pédestre nañ jugee mais gis nga malgré tout ça ak Fatick bi ñaam yëpp ñëw nañ ba fii nii di jàppale gars yi ci li nga xamante ne euh, moom mooy euh, mbéy mi voilà. grand lor grand ziar naa la maa ngi nii rek ça va yéen a ngi ci affaire yi ça va tey moom Pikine moom dafa mel ni moom kay kenn toogu fa kenn desu fa macha allah mhm. ñëpp ñëw nañ euh, jekki suñ tool mhm. parce que ne euh, wuyu woote président de la république mhm. mbay mi moom da warul nekk mbayu baykat yi kese mhm, mhm. ñun nga xam ne Dakaaru lañ dëkk sax mhm. dañu war a dooleel mbay mi ngir souveraineté alimentaire bi ñuy wax souveraineté alimentaire dafa war a nekk Mm-hmm. waratul nekk slogan dafa mm-hmm. war a jëmmal mm-hmm. te lu mu gën a gaawee nag maanaam lépp lu ñuy lekk ci réew mi ñu fexe ba mu nekk gàññ personnel loolu mooy mooy objectif bi macha allah waratuñ toog benn responsable dama dama sax jëlale waa Pastef waaye dama ciy waa réew mi yëpp réew mi yëpp sénégalais yëpp Sénégal ñëw leen fekk suñu suñu vacances agricole agricole yi nga xam ne réew mi lañ koy defal. Mhm. parce que waratuñu réew mi ñu toog. Mhm. di jéggaani lu ñuy lekk. Mhm. yoon. macha allah war nañ fexe ba nawet bi moom lépp luy kànja lépp luy bisaab lépp luy euh, ñebbe lépp luy dugub. mu ne mboq. mu ne gànn ci. ci réew mi tamit dëgg. ba suñu jur. suñuy jur gi. nit ñi. lépp loo xam ne dañ koy soxla. Mhm. ba suñu industrie. Mhm. ñu fexe ba. ñu ko jëlee ñu am lu ñu matière première boo xam ne. Mhm. dinañ ci mën a defar ripaas defar ci aliment. defar ci lépp. loolu ci mooy régler problème mu emploi bi ñu am ci réew mi. macha allah lépp leneen yeneen yëpp yëpp. macha allah kon daal ñu ci woo ko waxee waaw comme waxee gis ngeen mooy lu ma leen doon wax rek affaire bi nekkatul affaire u Pastef mais affaire u sénégalais yëpp la. Euh, te gis nga soo xoolee détermination bi nii engagement engagement bi nii ak volonté bi nga xamante ne tey euh, ndaw ñi am nañ ko sénégalais am nañ ko moo tax foofu laay woowee euh, ki nga xamante ne mooy ministre de la jeunesse ak ministre ki nga xamante ne mooy Mabouba ñëw leen waxtaan ak ndaw ñi jël leen suuf si suuf si bëri na fi suuf si bëri fi macha allah jël leen suuf si ngeen jox ko ndaw ñi ñu béy ko parce que comme ni leen ko waxee tey Prodac bi mu ngi fii nii euh, plus de 400 et quelques hectares yoo xamante ne ñu ngi fii nii 476 dégg ngeen voilà ñu ngi doon di rectifier plus de 476 mu ngi fii nii mu doon loo xamante ne tey jii nii mënoon nañ ko jël euh, jël ndaw ñi jox leen ko ñu ñu liggéey ko ñu béy ci parce que volonté bi mu ngi fi volonté bi non seulement mu ngi fi mais xale yi bëgg nañ waaw xale yi bëgg nañ te pare nañ accompagner ki nga xamante ne moom mooy euh, président Ousmane Sonko kon ci loolu noonu dañuy woo ministre bi

Euh, jox ko ñi nga xamante ne mooy ndaw ñi euh, au moins ñoom sax lu ñu fa def ta moo gën ñu jël ko def ko fii nii mu ngi sàngal kam comme ni ma leen ko waxee sànq 400 laa waxoon sama gars yi mais nee nañ ma gis na 466 hectares yoo xamante ne mu ngi fii nii tey jii suñ ko jëloon ne mooy euh, ci département yi sama gars yi sama gars yi naa leen sama gars yi dafa mel ni na ngeen de ah ah ñooy waa waañ bi ah ñooy waa waañ bi quoi ah gis ngeen waa waaw waa waañ baa ngoog gis ngeen waa waañ bi ñu ngi noonu ah mais mbaa mbaa mbaa gars yi ñu ngi liggéey rek mbaa togguñ di lekk rek ah ah di ñëw waaw waaw dëgg la dëgg allah macha allah macha tey moom xam naa kenn desu fa waaw ah, tey moom tey moom baatu ngeen bi <laughs> voilà gis ngeen gars yi comme ni ma leen koy waxee voilà ñu ngi nii gars yi ñu ngi fépp ah ñu ngi fépp waaw gars yi ñu ngi fépp gis ngeen voilà quoi kon léegi mooy lu may wax sànq rek waaw voilà sama gars yi sama gars yi ziar naa leen na ngeen def ça va yéen a ngi ci affaire yi hmm. yéen a ngi béy wala yéen a ngi euh, def réservage bi da ngeen waay ah yee mais ba doo leen doo leen ah mbaa ndekki ngeen rek ah ndekki ngeen ah con ah consommé ah, ah bay dundee moo tax ngeen ji ngeen ji leen ah kon ngay baax na mu ngi noonu ah. ah. <laughs> amul lan <laughs> gis ngeen gars yi voilà ñu ngi nii comme ni ma leen ko waxee gars yi ñu ngi nii day sànn voilà. mu ngi nii comme ni ma leen wax sànq rek waa ndaw ñi ñu ngi nii waaw soo xoolee lii dafa neex gis nga lu toll dimanche te ñii ñëpp ngay gis fii ñu si bëri ndeysaan euh, ñu ngi seen liggéey euh, ñu ngi euh, di liggéey lundi suba suba suñu xëyee dañuy dañuy ñu si bëri dañuy am liggéey sama gars yi sama gars yi ziar na mooy alors naka affaire yi waaw moom la de ziar waaw gis nga waaw noonu la noonu la gars yi noonu la ñoo ko bokk ñoo ko bokk yéen tam kenn du yéen quoi waaw affaire waaw affaire noonu la rek waaw nañ voilà nañ gën a jàpp rek waaw yàlla yàlla baax na yàlla sama gars voilà gis nga gars yi ñu ngi nii voilà gars yi ñu ngi nii waaw gis ngeen gars yi kenn toog comme nu ma leen ko waxee waaw ndaw ñi bëgguñu lenn lu dul ku leen accompagner ku leen jàppale waaw loolu rek lañ bëgg gis nga vacances euh, agricoles yi pour sénégalais yëpp la waaw pour sénégalais yëpp la mais dafa am loo xamante ne tey jii nii man dama ciy woo ministre de la jeunesse parce que jour ba ñu woowee fële ne waxoon ko tey am na loo xamante ne ñun lu gën a jafe mooy GPS bi ñoom commencé woon nañ ko bien vrai que li nga xamante ne tey jii mooy vacances citoyennes pour sénégalais yëpp la mais man tey lu may woo ci ki nga xamante ne mooy ministre de la jeunesse am nga euh, ni ñu koy waxatee euh, tey GPS nga xamante ne gën la mun a accompagner ci li nga xamante ne mooy vacances citoyennes yi dëgg la affaire bi nekkul affaire parti politique nekkul affaire u ay ay ay ay voilà muy noonu la affaire u sénégalais yëpp la ñëwal euh, nga jege leen parce que ñii nga xamante ne démb ñu ngi doon xeex ba dara dul dara nga xam ne ñu ngi doon xeex kenn du leen fay ñoo doon rey seen bopp ba tey jii may wax ak yow fii ngeen gis ndaw ñi ñëpp amul kenn kuñ ciy fay xaalis ñoom ñëpp lu ñuy def nii yëpp don de soi lañ koy def maanaam dañ koy def parce que lan dañoo bëgg seen réew dañu gëm seen réew kon ci ñooñu laa lay woo au moins mu doon sa point de départ boo xamante ne mooy foofu noonu di nga ko mën a commencer pour réussir li nga xamante ne yow bëgg nga ko mooy maanaam ñëw waxtaan ak ñoom boole leen jiital leen ci li nga xamante ne mooy liggéey bi hein, nga xamante ne ginañ la mën a accompagner nga xamante ne su boobaa nga jël sénégalais yëpp nag ñeneen ñëpp ñu bëgg adhérer daal di leen ci dugal mu doon jeunesse boo xamante ne jeunesse su Sénégal yëpp lay doon waaw ci loolu nag laay woo ministre de la jeunesse di ko woo di ko naan affaire du question coloration politique mais dafa am loo xamante ne mooy base te base bi tey jii nii mooy VAP yi nga xamante ne mu ngi fi depuis daaw ak daawati jéeg gars yi di ci liggéey kon ci base boobu noonu su nekkee démarré nga ci man gëm naa ni résultat yi nga bëgg euh, di ko di di ko am kon ci loolu noonu laay woo ñëpp waaw laay woo ñëpp di ci woo sénégalais yëpp waaw ñu jël li nga xamante ne mooy lépp loo xamante ne politique la lo ah <laughs> ah nga jël <laughs> waaw voilà mu ngi doon gis ngeen ndeysaan gars yi ñu ngi nii gis ngeen voilà mu ngi nii si la sénégalais yépp wa luñu des leen parce lan ñu jël affaire parce que day am temps politique temps politique mais fi toll ni dañu wara jël lepp politique la ñu jël ko tek ko feulé dal di commencer nak li nga Sénégal comme nous koy faral di waxé mu su avancé wala Sénégal bu baax ñepp la baaxal gis nga ah ah ah ah voilà. waaw. jaar naa la. Aliou ça va di naka affaire yi. waaw gis mu ngi noonu. tey yaa ngi waa ci kawam ñu ci kawam. waaw tey ñu tey waaw mais waaw gis nga tey xale yi tey loo wax ci xale tey dafa yàq <laughs> voilà gis <laughs> mu ngi noonu waaw kilifa bi. ziar ah, ah, ah, eh. la eh, nu dowe nak yene ngi doxal mais gisuma la nga tak rek xana yoro affaire yi asu ngi do ligay dor quoi tamal fe tiare sur mer ah tiare sur mer mais tiare nak gaaw ngeen def activité non si yow kay fa ñu invité ah da ngeen def activité mo mang koy wax sank rek mang koy wax mang koy wax sank fani rek inshallah deug rek nak affaire yi ça va voilà gis ngeen comme do len ko xé sama gaay yi voilà monsieur le maire ki nga xamantene moy monsieur le maire aliou bay mu ngi nonu yaksina sank euh mustapha sare euh jogé na fi sank ni voilà pour wan euh, la euh ndaysane ci li lañuy rek man lay wo leader yep wa hmm. na ñep ñew wa leader yep nak la wax wa na ñep wacc ci terrain bi parce que tay niko wa pikine defé tay dafa rafet wa mu bokku ci parti bi wa tay légui gis na fi mustapha saré légui la fi joggé gis na sank euh babacar ndjay babacar ndjay muy nonou gis nga mos voilà mu ngi noonu. allah. réew mhm. mhm. bu dañ naan jeunesse ba ko baaxal. Mhm. boo ko nee jeunesse baa ko bonal. Mhm. kon ñun jeunesse bi nañu jug defar suñu réew. Mhm. ñun jeunesse bi nañu jug toppatoo suñu réew. na xam liñ bëgg xam bañ. mais toog toog di naan man damay xaaju woo ma wala du ma woo yooyu affaire yooyu noonu. doxul. dëgg la nit da ngay am patience da ngay bul bul xaar fi ñu lay woo si lenn lépp loo xam ne woote nañ ko rek. jugal. Mhm. Mhm. mais bul fekk bul xaar ñu lay fekk sa kër naan la ñëwal ngir yàlla wala non non non. macha macha allah dafa kenn fii moom bi kenn ñëpp macha allah liggéey bu baaxee liggéey yëpp ay ñaan daal ñun ñëpp ñëw. ndeysaan ñu allah fii eh. allah macha allah voilà la nag. noonu la nag allah. mbay allah. macha allah. macha allah. kàddu rafet na. monsieur le président. Mhm. ak mhm. ci askan wi ngeen ko macha allah jàppale ay soins wutal leen a dem sawar tool si dem ci tool yi. macha rafet na jaajëf. Eh, Pastef drapeau Ngok. waaw Pastef drapeau <laughs> la. waaw ça ñu ngi nii sant bu baax. Uh-huh. tey ñëw nañ fi. Uh-huh. ñëw fii di woye mbaam. Uh-huh. muy léegi bi ñu ñëwee fii. baba fekk nañ si benn tool boo xamante ne. tool bi da nga koy xool nga xam ne lii gëj nañ ko bay. parce que buñ ko gëjul woon bay li wut bi nii buñ ñëwee. dañ koy bay kaay la bi mais ay garab fu mu toll nii ay jaasi dong moo fi baax. fu mu toll nii te si loolu lañ nekk. pour mën a pour mën a trouver espace boo xamante ne nañ ko mën a nañ ko mën a defaraat. normal pour bay ko. léegi bu buñ ko rujee nii ak suñu jaas yi ba pare nag. Mhm. soxla nañu benn machine benn machine boo xam ne. Mhm. dinañu mën a jekkil suuf si jekkil suuf si. Mhm. pour que mu gën a yombaat si ñun. parce que suuf si tool bu ñu gëj a bay suuf si moom day dëgër. ñu ku nekk di ko xam. bon bañ ñëwee fii tamit ñu ne biñ ñëwee ñu ne dañuy jéem a xool li ñuy bay ñu ne dañuy dinañ bay fii mboq. ñebe. kànja ak bisaab. macha allah mais après bi ma woo si tool yi nga xam ne ñoo nekk à dama leen laaj ndax fii nii am na ay golo mhm. ñu ne ma fii am na golo man leen kon comme mën comme fii dafa am ay golo man leen kon kon ñebe bi ci mbokk mi mhm. du mën a nekk mhm. parce que ñun fanaanuñ fi ba pare six heures du matin duñu fi fekk timis tamit amaan amaana mën nañu bañ a fekk te golo ku mënul ku ñëw sa tool ku mënul ñëw ñëw si tool chaque jour six heures du matin jóge fa jóge fa bu buy lëndëm jàppal ne fu amee golo yow mënoo faa bay mënoo faa bay lu mel ni mboq dëgg la wala boo ko bayee dina jafe lu mel ni naajo lu mel ni xaal mhm. day xaw a jafe mhm. léegi ñu ne comme de terrain boobu ñu ci fekk noonu la mel mhm. ñu ne léegi kon nañu jéem a xool nu ñuy def ñu jéem a xool nu ñu defee ñebe macha allah gerte ak euh, kanji macha allah ak euh, isaab léegi si loolu si loolu lañu lañu jéem a jublu xool lu mu ñu war a jox mais macha allah parce que taxaw nañ taxawaay boo xamante ne. Mhm. gis naa loolu gisoon tool bi. Mhm. ci suba bi ñu ñëw. Mhm. di nga xam ne fii gëj da nga naan lii ba bay ñu ko bu yàgg. macha allah. waaw léegi li ñuy ñaan rek. mooy ñëpp jàpp si. macha allah ñaan mu nawet bi mu doon nawet boo xam ne nawet bi am barke la. mba bi ñun ñëpp ñu jëriñoo ko. di jëriñoo nga barke bi Sénégal yëpp ci seen bopp. macha allah parce que li ñuy def nii. tey tàmbali la. mais bu ñu ñëwaatee fii déwén. Uh-huh. liñ ci fekk liñ ci uh-huh. liñ ci gis. Uh-huh. du mel noonu. macha allah parce que garab yi nga xam te ne yàggoon nañ fi. waaw maa ngi ñëw comme dindi nañ garab yi nag. suñ toll nii li koy des du bëri. waaw nañ nañ. macha allah ah Fajarul. <laughs> jaajëf. parce que. mënuñu mënuñu wax si moom lu bëri. waay non non kooku nekk. waaw noonu la noonu la. bu coono bu coono moo dem ba Ziguinchor bii moo doon nii waaw ñaar yi moo si doon nekk. waaw jàllabe jàllaba ñaari tubay. walaay la si yàgg def. ndeysaan di ñëw si manifestation yi bu ko Macky Sall jàppee. ndeysaan waaw mais mais kenn du yéen waaw kenn du yéen yéen tamit. kenn du yéen voilà sama gars yi. gars yi wala boog sama gars yi. Eh, wala ma eh, eh, honorable wala ma honorable waaw. <laughs> kese kese. man fajar laa béy fajar sama gars yi voilà mu ngi noonu gis ngeen voilà honorable honorable la ngi noonu yaa ngor bii nii ndeysaan ndeysaan ndeysaan ah, ay dërëñoo ay jàmbaar lañ ay jàmbaar lañ jaajëf aja idi barkeelul aja barkeelul waaw leen góor waaw feeñal waaw aja idi idi barkeelul aja idi waaw góor waaw leen góor waaw leen góor waaw leen góor aleen góor mais Idi nag président war na laa jëndal téléphone bu bees de eh, eh, eh, mais Idi war nañu koo jëndal téléphone bu bees ah yu yu yu téléphone niveau yi ah Idi yoon waar waaw mais Idi li muy waaye xool téléphone bi Idi yor yow Idi nañu ko jëndal téléphone bu baax ah <laughs> voilà gis ngeen gars yi ñu ngi nii voilà macha allah voilà gars yi gis ngeen mu ngi noonu gars yi nekk ay jàmbaar honorable la ngi noonu waaw voilà honorable la ngi noonu ndeysaan ñëw jàpp ci jàpp ci liggéey bi voilà muy noonu quoi gis ngeen gars waaw gis ngeen ay soto ngoog waaw ay soto moom ci waañ bi la nekk ah yee. coordonnateur parce que Thiaroye Gare nit ku ah. ëmbal. Mhm, macha allah mu ngi ak ñun. macha allah c'est un grand qui est bien. Mhm. fu gars yi nekk dafay dem. ndeysaan ndeysaan depuis nag. Mhm. depuis vingt ans jusqu'à maintenant. macha allah ci terrain bi. macha allah ci àgg dofa ko moom quoi. ndeysaan macha allah waaw yow ndeysaan noonu la noonu la affaire yi noonu la macha allah ndeysaan ndeysaan. macha allah ndeysaan ndeysaan ndeysaan mhm. macha allah macha allah waaw noonu la rek noonu la rek jaajëf waaw jaajëf grand jaajëf jaajëf waaw Caaroy moom maa ngi xaar nge maa ngi xaar seen invitation ñëw foofu waaw ci programme yi voilà gars wala gis ngeen ah tonton Ayib ah spécial bu département de allah macha allah tonton Ayib ba maa ngi dégg sànq ba léegi mhm. ñoom ñii ñoo tonton Ayib nañ la ndeysaan taxaw Aïssa ñëwul kaay non Aïssatu moom moom moom moom waaw man de amoon waaye kii moo si jàpp ndeysaan moo si jàpp de amoon naa détenu de waaye lim si jàpp uh-huh. macha allah yàlla ko yàlla fay. waaw waaw waaw Aïssatou Aïssatou jàmbaar la. buy ñu liggéey. buy <laughs> la kenn du yow kenn du yow kenn kenn du yow jaajëf jaajëf jaajëf waaw jaajëf kenn kenn kenn du yéen incha allah non non pare leen rek pare leen bëgg rek yaa xam na lépp am na ah ay eh, jimat waa noo def yaa ngi si jàmm bi ça va jàmbaar ngeen de sama gars yi as hmm no bëgg na dem ci kanamé eh. wa wa jëlal borom projet jumat wa ndaysan lu lu ki di wax eh, ahmed aydar nan ngiré ha ci ngiré ndaysan ndaysan ndaysan gisa gaay yi ngi doon ma sha Allah patriotique mom comme nima koy waxé rek ndaysan patri pastef mom ñun ay eh, wala ay famille lañ waaw soo ñëwee fii e nii ba gis li nga xamante ne moom la gars yi ndeysaan di def gis ngeen trans trans d'âge yëpp ñu ngi fii e nii instant bii nii waaw trans d'âge yëpp soo ñëwee fii nii tey yaa ngi leen fi fekk waaw que ça soit mi ndaw mi mag mi jigéen voilà mi góor ñoom ñëpp ñu ngi ñu ngi fii nii voilà ñëpp a ngi fi jàpp ci li nga xamante ne moom mooy mooy liggéey bi mooy li may wax rek gis nga fii li fi nekk ci ndaw tey jii nii yàlla xam na ni ku leen joxoon 5 hectares 10 hectares ñii nii du taxaw ak ñoom waaw parce que volonté bi mu ngi fi euh, mais tamit euh, li nga xamante ne moom mooy euh, détermination bi mu ngi fi waaw tey soo xoolee fii un hectare cinquante fii dafa fees dell gis ngeen gars yi gars yi ñu ngi doon gis ngeen fii dafa fees dell ci ay ndaw waaw nekk ay ndaw jigéen mag te ñëpp ndeysaan benn détermination bi la ñu am tey jii nii kon comme ni ma ko waxee sànq di woo ministre bi nga xamante ne mooy yor wàllu ndaw ñi mais tam di woo ki nga xamante ne mooy ministre de l'agriculture di ko woo di ko naan suuf si mu ngi fi suuf si nga xamante ne mu ngi fi béyuñu ko nañ ko jox ndaw ñi ñu béy ko waaw ndaw ñi suuf si nga euh, accompagnement lañ soxla gis nga fii li ngay gis fii nii yëpp ndaw ñi ñoom ñoo ko cotiser ñoom ñoo cotiser seen bopp ñoom ñoo génnee seen dërëm ñoom ñoo génnee seen ñaar dërëm ñoom ñoo def seen lépp daal di euh, euh, dajale lépp ñëw di ko def fii nii ñii nag ku leen jàppale tuuti ci financement ku leen jàppale tuuti jox leen suuf xam nga ne tey li nga xamante ne mooy autosuffisance bi nga xamante ne kii mu ngi koy laaj ki nga xamante ne mooy mooy premier ministre ak président Ousmane ak euh, président Diomaye ñu ngi koy laaj euh, loolu kon dinañ ko am mooy maanaam autosuffisance bi nga xamante ne ñu ngi koy woote il suffit juste ñu former ndaw ñi il suffit juste ñu jox leen ay financement jàppale leen jox leen suuf ñooñu noonu bëgg nañ liggéey am nañ volonté bi waaw parce que soo xoolee Euh, département sànq Rufisque bu ma dem fële même chose waaw soo xoolee foofu noonu ay ndaw rek a fa nekk nga ñëw fii tamit même chose kon moo lay wan ni volonté bi mu ngi fi léegi lu des mooy lan accompagner leen waaw te te ma ko waxee sànq noonu rek la mën a demee parce que euh, amul coloration politique parce que ministre de la jeunesse pour Sénégal yëpp la fi nekkal mais dafa am loo xamante ne dafa am base base bi moy euh, nous ñu fexé euh, li nga GPS ak ñi nga commencé nañ VAP depuis li nga deux ans parce que nous, bañ ko commencé ak légui ñu ngi liggéey liggéey bi ñu nous, dërëm ñom ñoy cotiser ñom ñoy def nous, Nous defal seen laaju ñu dërëm chaque jour ñu ngi sur le terrain nous, nous, tay so leen nous euh, encadré woo yeneen ndaw ñi nga xamante ne mooy ndaw Sénégal yëpp maanaam kon yow li nga bëgg da nga koy da nga koy am facilement. voilà kon ci loolu la ñuy woo ministre de la jeunesse ñëwal nga jege dem ba ture mu fexe mobiliser GPS bi daal di ñëw gungale ci li nga xamante ne mooy vacance agricoles yi nga xamante ne incha allah yaa ngi koy yaa yéen koy sumb. parce que ndaw ñi soxla wuñ dara loolu mooy ndimbal sànq ba ma demee fële ne département Rufisque même chose ñoom. pare nañu ku leen jox di hectares dañ koy béy mais ñoom lu ñu bëgg du lenn mooy ku leen accompagner ku leen jàppale parce que tamit euh, des fois day métti waaw des fois day métti ay cotisation tout ça affaire yooyu noonu day métti waa kon ci loolu la ñuy woo ministre de la jeunesse xam naa ni say éléments ñu ngi seetaan live bi euh, xam naa ni soo déggee li nii di nga jóg ci loolu noonu fexe ba nga xamante ne day doon affaire euh, vacances agricoles yi nii day doon réussite boo xamante ne pour sénégalais yëpp yëpp lay doon kon ci loolu noonu la xaar tamit ma buuba Euh, di ko naan voilà ndaw ñi ñu ngi ni machallah depuis euh suba ba légui ñu ñu lay béggé mabouba docteur ki nga xamantene docteur mabouba gaay ñu lay ñu lay béggé contane nañ ci sa liggéey wa mu ngi mu ngi mu ngi nonu wa di la féliciter wa di ñaan nak bon yeneen ministre yëpp ay jambar lañ mais ñu jël exemple ci ki nga xamantene moy mabouba wacc ci terrain bi euh dajé ndaw ñi euh, euh ñew waxtaan ak ñoom euh, xam seen i bëgg-bëgg jéem leen ci gunge euh, mu ngi noonu loolu la ñuy woo ba pare comme ni ma ko waxee sànq tamit politique ñu bàyyi politique politicienne bi di woo sénégalais yëpp gis nga ko xool démb président Diomaye nu mu waxee ngay xam ne kii ku am yéene ci Sénégal la kon léegi lan moo des mooy ñu bàyyi politique politicienne bi jéem Euh, ñun ñëpp sénégalais yi jéema euh, jàppante jéema fexe ba projet bi réussir parce que projet bi wax naa leen ko su réussir nekkul parce que idi pastef la bokkoon moo ciy bénéficié wu yàlla xam na ni tey jii nii Euh, projet bi su réussir soo leen moytul ñi nga xamante ne ñoo ko doon xeex sax soo moytul ñoom ñoom ñoo li ñu ciy am sax keneen du ko ci am kon encore une fois ci loolu laay woo ñi nga xamante ne ñoom ñooy sénégalais yi ñu jël affaire politique bi teg ko fële waa jël jiital li nga xamante ne mooy intérêt Sénégal xam ne Sénégal bi tey su yàlla defee ba ñii yéene bu ñu ci am mun kii say doom mun nañ ci bénéficier wu say jarbaat ak keneen ak keneen kon nañu bàyyi intérêt personnel bi nañu yéenante jàmm te euh, dajale ñun ñëpp suñuy doole daal di jéem a euh, œuvrer pour li nga xamante ne mooy Sénégal boo xamante ne Sénégal bu naat lay doon Sénégal bi nga xamante ne Sénégal bi nga xamante ne gina naat ba nga xamante ne kenn dootul soxla di jël ay gaal wala di jël li nga xamante ne mooy yoonu Nicaragua bi naan yaa ngi dem jéggaani foo xamante ne xamoo loo fay fekk voilà mu ngi noonu jaajëf sama gaay yi voilà mu ngi noonu gis nga mu ngi noonu voilà gars yi ndeysaan dañuy liggéey di kontaan waa gars yi gis ngeen mu ngi nii dañuy liggéey di kontaan fii ku fi ñëw tey ba gis li nga xamante ne détermination bi nga xamante ne ndaw ñi am nañ ko sa yaram sax day daw kon nag encore une fois ñu ngi leen di woowaat ñu ngi woowaat suñuy autorité que ça soit ay ministre tey gis nañ euh, euh, ki nga xamante ne mooy honorable euh, maire Diamaguène Aliou Bey ñëw na fi tey gis nañ fi Moustapha sare gis nañ fi Babacar Ndiaye gis nañ fi autorité Pikine yëpp tey ñëw kon ci département bu nekk lii rek la ñuy laajte keroog ba fi ñëwee gis nañ département Rufisque même chose la woon ñoom Assane Assane Assane ñoom Assane Diop ñoom ñëpp ñëwoon nañ voilà mu ngi noonu ci loolu la ñuy woo ñi nga xamante ne ñooy suñuy leader ñëw leen gunge jeunes yi parce que yokku leen li nga xamante ne mooy détermination ànd ak ñoom euh, voilà fal nañ la nga ñëw xam nga yow toog rek euh, nit ñi di la fekk si loolu jeex na démb dafa am action boo xamante ne ki nga xamante ne capitaine Touré da ko def démb euh, vidéo vidéo naa démb dañuy ñëw mu gis benn accident pourtant mënoon na romb mënoon na romb directement dem mais lu mu def dafa def loo xamante ne maanaam man ba léegi nii sax daf ma yéem gis nga ba ñu ñëwee dañuy boo jiitoon ci convoi bi dafa arrêté convoi am dem jàppale ñi nga xamante ne mooy blessé yi jàppale ñëw ñu defar li nga xamante ne mooy constat mu taxaw puus li nga xamante ne mooy euh, jàppale gars yi ci puus bi ñu doon puus oto yi pour jéem ko voilà jéem ko yóbbu yóbbu feneen ñu pare ci loolu mu dem jël ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci oto ba yëpp leen ci ay otoom yóbbu leen ñii dem cees ñii dem Dakar kon maanaam mooy lu ma leen wax foofu la ñuy xaar suñu autorités yi suñu autorités yi fu ñu leen di xaar mooy lan ñu jege seen askan encore une fois nañu jege seen askan ba pare nañu doon ñoo ñu accessible encore une fois parce que yow mënoo fi accessible ku nekk di la woo di la jot ah nga tey jii nii euh, la woo mënatu jot na si li nga xamante suñu yi accessible euh, nañu doon ñoo xamante dañuy askan ba nga euh, projet nga dina dina dina ànd kon encore une fois maa ngi ziar ñëpp euh, di ziar ñëpp di nuyu ñëpp di leen naan incha allah image yi après dina ñëw lépp loo xamante ne jëlee nañ ko fi wala lépp loo xamante ne lu bees la fi incha allah naa leen ci jëlal vidéo naa leen ko fotool comme ça nga xamante ne dinañ ko wan Sénégalais yëpp gis ko. encore une fois ministre de la jeunesse ki nga xamante ne mooy ministre boobu Ndiaye su nekkee seen liggéey ak li nga xamante ne présidence mu ngi koy xaar ci yéen ndaw ñaa nii. soxlawuñu lenn xaaruñu lenn juste ku leen accompagner juste ku leen jox ay suuf kon boobu nag ñu ngi ciy xaar ministre bi ñu ngi ciy xaar ki nga xamante ne mooy ñaari ministre yi mooy de la jeunesse ak ki nga xamante ne mooy Mabouba maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm di leen naan ci kanam ak jàmm jaajëf sama gars